dan ma taxaw rek té mic ok man ci hôtel ci la doon play mm. waaw fi mooy fi Paradise Hotel ci ñu anti ami ñu na gërem ñoom bu baaxa a baax mm-hmm. man yaakaar naa li ma mun tey fa la ko mëne ndeysaan gannaaw yàlla ak yonente bi pan mm-hmm. ma bëgg nga gën a yokk ñooy gërem moom kay mm-hmm. xam nga Iboy su ma toogee fii di lim di dinaa juum lu nga bëgg dinaa juum mu <laughs> juum nga bëgg man ma kenn man li <laughs> uh-huh. ko juum nag amul amul tàngi xam naa ne su ku fil ne fàtte naa ko man laa ñaan maa la laa mhm. waaw di jéggalu ñëpp mhm. te tamit euh dama dafa amee surprise nako ko wax mhm. ndax man musuma gis su ko jabaram bu di kot <laughs> ba tey suma jabar moom a kot yaay so bo boobu Pa Omar bi ana suñu concept naga Anas Beauty concept concept Anas Beauty concept ah non pas pas defal nii ma xool def ko déedéet pas déedéet pas defal nii pas ma bëgg a non boo may ñëw si jóbi moom maa code non ñëwal Anas Beauty concept <laughs> moom foog ma dem fa mooy Ana hmm? Diak <laughs> waaye pa pa dañ kontaan trop euh, pour am la parce que pour am la neexut Jangan naw di xam nga mana mana ne mana, kila bila kii la bi la enggak bi difin no, no, no, lah. Nah, mana non mana la waaye nag lépp rek bi di gërëm rek ma jàppale rek spécial borom kër gi bu Lamine Manga waaw moom yàgg na ma jàppale du tey dafa tey ma bu jàppale maa ngi ko gërëm bu baax a baax ko di ñaanal tamit suñ njiiti réew ndax gannaaw yàlla lépp moom la mooy dëgg waaw ndax fii ñu toog gars yi pour ñu seetaan bu to ne mom la la ah yaakaar yaakaaruma ne bu nañ fi toog. dëgg dëgg koy làmbaay ñaaw de. waaw yaakaar naa kon kon ñu ngi ñu ngi lifin orugaay ñu ngi si wàllu yaay Samba Mbayaane <laughs> waaye papa papa balaa may dem papa ah, ñu doon fecc si vidéo bi nii dafa interesting waaw sànq nag yaa ngi maa laaj xale yooyu waaw waaw xam nga lu tax xale yooyu sumay xale la waaw pa déedéet nekkul dara déedéet taxawal pa déedéet déedéet pa Tamaracounda bi Tamaracounda bi kon léegi nii gis nga tedu bàyyi xale yooyu noonu déedéet nekkul nag ñoom ñëpp tamit ndax ñoom yëpp pa dama ooyee non non Iboy yow fi nga ñëw xam naa fa déedéet xam nga fa xam nga lan la Iboy Iboy ba yow lan la. déedéet li xew mooy. am na Camara Kounda bu la ko léegi nii naan kan. kan kii. am naa jabar kay wala suntaay maa ngi jeex si xaaral <laughs> kii dafa dafa amul bay ñaareel ak ñetteel. kii acca. ah, ah da am. xamu ne su ma jógee fii ma dama war a génn de. da war a génn ah, waaye génn sa jabar de. <laughs> ok no problème. bu fii <laughs> ko weer. Ah. Paulé tàggatoo moo dafa ma weer léegi nii. baalal ko moo dafa weer ne man ma gis si benn cooj. mu ne ko waaw su ma. cooj jaamu yàlla la cooj cooj jaamu yàlla la kii foo ko gisee yàlla nekk. waaye nag su ma ko weer. cooj la kii foo ko gis yàlla nekk anyway Paul tàggatu dama bëgg a tàggatu. si waxtu bi tàggatoo bi bu studio. si waxtu bi jeex na. maa ngi gërëm ñëpp. képp ku Starline uh-huh. ñu naan waa Starline yal na fi bi bi yokku uh-huh. ngeen di yëg ko uh-huh. yéen ñëpp di ñaanal tam réew mi bi yàlla ba def fi jàmm di ñaanal tamit fan si fan si ak ak ñi kool ak ñi mënta dugg yëpp maa ngi leen ñaanal di nuyu waa Amérique yi waa Texas wa Atlanta wa Washington suma gaaña di nuyu Ndiok Malick London ñoo xam ne ne dégga dégga ñoo maa ba jàppale di nuyu Lamine Thiam champion saaw waaw di ko nuyu bu baax a baax. Mhm. waaw di nuyu tamit képp ko boo xam ne nii jaar nga fii rek. Mhm. waaw di nuyu tamit waa groupe Jëf Jël. Mhm. waaw di nuyu sañang ak asan Thiam. ñi nga xam ne nii ñu si staff bi lañ. ak Jëf Jël ñu seen si yëpp andal mi bañ la doon gis. waaw non non non ba fa lañ ma gis man non non asan <laughs> an an an ànd woon ak moom Assane moom moom beneen suuf boo la demee woon. man asan mom wax ne yena a àndoon. xanaa yow yaane yow ba rek ma gis. li ma la gis maa ngi nuyu everybody. léegi nga wala la bëgg a xam mm, Pape mm. ba mooy sa favorite color man nag waaye nag bëgg naa ko trop. waaye waaw waaw. waaw lekk bi nga gën a bëgg. Mm. Promoda. Konop. kan la la nopp. waaw fi mu nekk ñëpp ak laa seetaan yow yor yor yor ma bëgg a boole réew mi. yow <laughs> da nga a boole de. yow non Adama Diom Adama Diom moom la woon de démba la démba la Adama Diom mooy suma awa buri kiram. ma ne ana Adama Diom ma yaay noonu bu di ma seetaan yaay suma awa buri kiram caare mi dafa bëgg boole yow. ma ne ma ne Adama. ok ok Pa wala ñuy dem gars yi dañoo dog waaye mus nga da nga play football. kan noonu. Hmm. waaw dama daan try dama dee try. mus nga score. man Sénégal moom ma ko goal seen player score goal mu waaj. ok jërëjëf jërëjëf euh, kontaan nañ bu baax si seen euh, time boo na spend pour seetaan si show bi. di bég ci yéen bu baax a baax a baax Thiaré euh, wax balaa ñuy tàggatoo. waaw euh, xanaa di leen wax ne rek mhm. euh, jërë ngeen jëf mhm. yéen yéen a tax programme bi neex koola si mhm. ñi nga xam ne ñu ngi doon jéem a dugg ñu ngi leen a jaajëfal bu baax Pa Omar lañ fi amoon di nuyu ki nga xam ne rek mooy jabaram Aana Diak suma jabar fàttewuma ci ki nga xam ne rek mooy doomam ji di bébi may ak Adama Diop wan moo tey waxal bi nga ne salum di fi nanga tudda Anas Miss Beauty Concept. <laughs> maa nyu, man kon bela buka. Oke, jere jep. Ayo nyu top toog you of Africa. Elections. Election mooy sànni karta. Election suñ ko waxee si Gambia den am na ñetti pàcc. benn bu njëkk bi mooy bii présidentielle ñaareel bi mooy National Assembly. ñetteel bi mooy local government or local authorities election bii dem na bi dem na léegi bii dañoo senta suñ waxtaan tey wala suñ lecture présidentielle si lañ doon tànnee président national assembly si lañ doon tànnee néegi député yi loolu yëpp passé na léegi nag lu tax ñu bëgg a senta ci bii nii mooy mu ngee waajee ñëw te local government election wala local authority comme niñ ko ooyee léegi dafa am solo lool ndaxte local government mooy ñun ñëpp si ay gox lañ dëkka te ci gox bi si nga am authority si wala community bi ki nga dëkka foofu la nit ñi gën a nga xam ne yow sa soxla balaa ko assembly national assembly di yëg wala balaa moo dem si président dafaa gën a njëkkee si sa gox